yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al waraa bismillaahi rahmaani rahiim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi nuyu mboolem ku ne ci jataay bi jataay bi ci barab bu barkeel bi ci buntu jumaa ji nga xam ne léegi laa dégg noddukat bi mu naan allahu akbar léegi laa ko dégg bi muy jeexal nodd gi mu ne laa ilaha illallah mu ne ko wax nga dëgg de léegi la ko wax maa ngi nuyu monsieur le di nuyu alxalifa di nuyu pénc mi yëpp imaam yeeg notable yeeg ñëpp mag la nuyu ku dugg ci lim juum waaye yëg leen maa ngi nuyu ñëpp waxoon naa ko docteur nag ci sun ndaje mu njëkk ma walla mu ñaareel ma kero ba ma daayitu zahirina wa zahirati wooye ca pénc ma maag oustaz mouhamadul amin donde lañ ñu waxoon lañ fas ba léegi lañ ñu waxoon ca pénc ma lañ fas ba léegi tey ñoo ñu ko njëkk a defal septembre 91 maa nga yëf ya ba léegi yàlla na loolu yàgg du hasard nag kon ñu dox ba mu yàgg rek ah lan penc mi penc mi doon barab boo xam ne juróomi at a ngi nii ñu ñëw toog fii kon loolu du hasard yàlla yàlla du def sànni day def rek rabbana maa xalaqta haza batila subhanaka faqina azaba naar yal na yàlla fay ñëpp ñëwa ci nañu kon niñ ko baaxoo ñu defe yàlla na yàgg dellu siwaat ci pénc mi ñaanal yàlla ñi ko fekk woon daaw te wuute ko ren ña ca tukki yàlla na ñibbisi ci jàmm ña ca feebar yàlla na yàlla saafara leen ca faatu yàlla na yàlla yërëm leen bu déwénee buy ñëw yàlla bu kenn manqué benn selil bu ñu tuddee Ali Imran bu Malika ci njiital soxna si taxawoon fii léegi ak ñim bokkal tëni yi ak ñi ñëw te soluñu <laughs> tëni ak quelque part elle est mère cellule boobu mooy woote comme cellule yi ci dëkk bi ak bitti dëkk bi ba toll ci ñaar fukk lu topp ñooy def léeg-léeg ñu woote ñu ñëw ñu waxtaan leen ci tem sàngam ñoom ak seeni gan ak seeni invité docteur dugg na ci léegi ci invité yi yal ko yàlla fay bu ñuy ñëw nag ñoom ñooy tànn comme ni mu ko waxee léegi yaa seydaa tànn na leenum tem nu jox ma tem ba ma bind ñëw di nab nabi su ma nab nabee ba jeexal delloo leen kàddu gi na Rabia a nga nële soxna Adama Seck bu Zeynabu Fall ma nga nële ak ustaas yi ci sama ndeyjoor ak ilimaan yi ku ci ne jël ci kàddu jubbanti jekk-jekkal bam nekkub tem ñi ci des xëy na jël ay laaj ay question laaj yooyu buñ ko dajalee indi ko bu fekkee sëñ Mbàkke ñëw na mu jottali ko laaj buñ ca jekku ñu tontu ko buñ ca jékkut ñu bind ko yóbbu wala ñu ne xamuñu ko wala ñu ne xamuñu ko léegi may ñëw jenn waaye damaa woo ma nangam la tudd mu ne ko waaw mu ne ma sama tur bi ku ko doon adat ñaata la ma ne ko loo ko doyee mu ne ma c'est-à-dire ne ko déet man laajuma la ay commentaire dama laa laaj rek loo ko doyee mu ne ma dañ ma wax ne dama war a xam sama tur ni mu toll ma ma ma ma saraxe kilo ceeb yu toll noonu ma ne ko du man maa la koy wax nit ñi dañ dofloo nit ñi dégg naa fi rajo boo xam ne li mu war nit ñi am nga jëkkër mu ne déedéet dangaa bëgg jëkkër mu ne waaw mu ne sa poids ñaata la moom su xamoon dara dana laaj loolu kon kay danga koy woo rek mu wax la ko am de ah sa ñaata la nga ne ko quarante cinq kilos <laughs> bu dee yi mu ne ko soixante deux mooy la dangay wut soixante deux kilo yi saabu soixante deux kilos yi gerte 62 kilos yi pepp dana la ko limal ba nga xam ne yow ak say bokk sax mu ngeen dajal du ngeen ko am waaw docteur am na femme boo ma soxla lima limal ma ne ko jox ma ko wutal la jëkkër maanaam waa ji ne ko da da koy ñaanal jëkkër ne ko da ngay rey aw nag saam ko ñetti téeméeri saam ak fukk ak ñett saam bu na nga teg ca lii borob saabu ak fanweeri dërëm ak juróom man nga jox moom li koy laaj mu jox ko quatre-vingt-cinq mille dégg nga ak xar mu judd mercredi seet ma ne ko bul jënd loolu dajale ko jox ma mu wutal la jëkkër lii kay koo ko jox mu takk la seet seet loolu mooy suñuy ñëw kon ñoom dañuy tànn benn thème nañu waxtaan lañ ci tam jooju ñun nam na bi suñu paree nag laaj yeeg tontu yeeg ñoom seen yooyu moo cee tege docteur nee na bu ñu jula ñu del si ma ne ko dinañ ko def bu ñu juli jee gee nu del si parce que Sofiatu moo aye waaw félicitations et du courage <laughs> waaw waaw defe naa waxoon naa ba ma ko fekkee hôpital ndeysaan seet te te saalum saal laa bëgg mu seet musuma koo gis kat mu ne ci hôpital ba da daan teg saalum saal laa bëgg mu seet si ma su ma seetee danaa tane papa jën yaayalum saal mu ne waaw mu ne ma sama doom ji de boo moytuwul ci sa loxo bi lay des ba ne ko kuy sa doom mu ne ma sofi la tudd fu ngeen nekk hôpital ma taal sama woto ñëw fekk ko ci lal bi ndeysaan <laughs> mu ñëw nuyu ko rek mu bëgg a jóg mu ne ëpp naa def bul jóg comme dañ laa nangam nangam tëddal rek waaye daal keroog gis naa mu def noo xam ne yëg naa ne am na lu mu yëg loolu nag ëppoon naa ñàkk a def soxna Adama lu am rafet rek bu amutoon ñaaw na walla fa ko wax yàlla na ko yàlla fay muy nam na bi nag ci yëf yi di di dajale moroomam yeeg tàntaam yeeg bàjjanam yi ak tontoom yeeg sëriñam yeeg ilimaan yi naan leen lii mooy selilu Ali Imran bu Malika selil mooy mbooloo mat onze personnes te bëgg a bokk ci liggéey bi Ali Imran di liggéey section mooy mbooloo mat ñaar fukk ak ñaar te bëgg a bokk ci liggéey bi liggéey bi dara lu dul jéem a yaatal diine ji noonu ko seen daayira bi waxee yaatal diine ji loolu dong mooy kuréel mooy liggéey bi ñu ci def suñu tuut suñu temps ak suñu force dar si ma doon jàngale ci jàkk ji léegi te tax maa yéex a ñëw lu rek la soyez bienvenue Hadj Mbacké <laughs> aleykum salaam maaleykum salaam. waaw de jéggal nañ la Mbàkke. nay de sàtt comme yaay éli bi nii ngay toogee dégg waaw docteur mool mool dum ubbil dégg ah, waaw ubbil na la dégg ok su ma xam ne jàpp na la waaw yàlla xam na ko ah? waaw moom ni ko ñu ne tey naa ta naa waxtaan sëñ Mbàkke ci kóllëre naa waxtaan tey ci kóllëre nga xam ne kenn mënu ko sàmm te amu imaan kenn mënu koo sàmm te amuy jikko yu rafet kóllëre kenn mënu koo sàmm te amu imaan kenn mënu koo sàmm te amu jikko yu waaye kenn du am imaan ak jikko yu rafet it di firi kóllëre di ko yàq lu solo la loolu moo war nekk waxtaanu tey bi tomb bi ma ci njëkk a def mooy indi ñeent ba juróomi aaya fi yàlla santaane sàmm kóllëre su ma ca noppee indi benn addis mbaa ñaar fi yonent ba sallallahu alayhi diglee sàmm kóllëre su ma ci noppee jéem a indi xeeti kóllëre yi su ma ci noppee indi kuy fecc kóllëre li nga def lu muy wàññi su ma ci noppee indi mbir yi nga xam ne ku bëgg a sàmm kóllëre boo ci wéeroo mu jàppale la foofu laa bëgg waxtaan wi jaar muy jéego yi nga xam ne ci laay jéema jéegi ndànk-ndànk tomb moo ci toll ne maa ngi ca tomb sàngam ndax mu bañ a nekk waxtaanu diine te nekk conférence xaasa <laughs> wa billahi tawfiq mu njëkk fi ma wax léegi muy laay yi nga xam ne borom bi daf koo junju ci ñuy sàmm kóllëre daa wax na wa awfu bil ahd inal ahd kaana mas'uula yàlla mu ne dee leen matale fi waxu nag dee leen sàmm wolof nag sàmm kóllëre mais alxuraan matale kóllëre lay wax dee leen matale kóllëre topp leen ko ba mu jeex ndax kóllëre bu ëllëgee yàlla day laaj day laaj ki nga séqaloon kóllëre lu ko firi lu ko dindi boo na ci man la jóge loolu dal yaa ko sa bopp waaw firi kóllëre gi ci man la jóge nga war dal yaa ko sa bopp waaw moo tax nit ñi di ko sàmm bi la xasee jox loxo nga jox leen wala ñu xam la nga xam leen wala ñu yëg la nga yëg leen lay firi ku du jóge ca ñoom mukk danañ ko sàmm ba taxaw ca seen kanam borom loolu nag borom bi subhaanahu wa taala noonu la ko bëggee mooy ku am ci ñun kóllëre ak borom ja mu sàmm ko mu matale ko lan mooy kóllëre mooy benn pacte bu dox sa digganteeg nit kaay ñu nawetaani na ku ne joxe fukki junni ñu jënd jiwu bu la waa ji gënee gore rek def nga mu musiba ànd leen ko ba mu jeex ànd leen ko ba mu jeex léeg-léeg nga ñëw ñëw ci kër fekk fa gone gu jigéen jox yaayam sa fukki junni ne ko takkal ma ci sagar waaw gone ga màgg soppeeku <laughs> président na nga def kii mooy président Al Imran dégg ngeen président gone ga màgg soppeeku ndax docteur gone gu jigéen bu tollee nee bokkut ak bu fi amee 17 ans dañoo amoon suñ doomu bàjjen boo xam ne bii mbàkke bawal ba mbàkke jeex moo ca gën a ñaaw ndekete su màggee dana rafet maag bàll la ñu dem wut këriñ këriñ ne sunu sunu bàjjan këriñ bii moo lay wan ne numbu ñu sa doom ji jox koo këriñ ba ñu dem jàngi ba ñëw rek fekk gone ga rafet nu ne bàjjan ñu ne sàll ñu ne waaw ana sunu këriñ ba mu ne réer na ma ne kon daal dina tukki na sàllaw noonu lañ ko xañe maam Balla waaye su fekkoon nag sens contraire bi moo am nga jël sa tuut def ca ñu yore ko ba mu soppeeku ñu delloo la sa tuut may ko keneen ah loolu du kóllëre loolu du kóllëre waaw lii kóllëre mooy ah sama kàddu raw na ma loolooy kóllëre sama kàddu raw na ma loolooy kóllëre ndeysaan man naa ngi ñëw si defem le 22 juillet 99 hmm? léeg-léeg nit ñëw fa ba mu yàgg rek tàggu ma ne maa ngi dem ma ne la waaw nuyul nu waa kër gi nun dema gunu la doon jooyloo Cerno Birahim Ñaŋ ba ma fa demee mu woo ma téléphone ni ma mbaa doo fi jóge ma ne ko ah manque ba ca kanam cest à loolu man tam ku mel ni man daf caa war a góorgóorlu ba kóllëre ga nga amoon ba ñëw ñu jël la bul jekku dem buy neex na la fa fekk buy naqar na la fa fekk te it mën naa dem ba neex ndax bërki démb bi ñu ne nan yokkal gaa ñuy astuut ci privé yi ñun yokkal nan nu waaw Baye Omar Gueye domp tuuti kiinu baax na de surtout ñun ñi nga xam ne ay oustaz businessman la de <laughs> sponsor rek ñun jeunes yooyu ah baax na de baax na di baax dëgg la def laay jooju suñu borom def ne waa aw bil ahd matale leen kóllëre lu tax innal ahda kóllëre kaana masula dañ koy laaj bu ëllëgee yawmal qiyaama ca kanam suñu borom allahu akbar koy laaj ca kanam suñu borom lu loolu nag imaane yi tax nit ki sàmm ko waaye jikko ju rafet mooy tax nit ki sàmm ko ndax boo sam samp xamante nit kóllëre ay obstacle dañuy ñëw pour yàq ko obstacle yoo xam ne ay wax la obstacle yoo xam ne ay fee yëpp pour lan brouiller brouiller kóllëre gi waaye sa waa ji moom gëj nga ko danaa ci fan yii rek ah moom xamul ne yow est-ce xam na sa kër sax lu ci sa yoon est-ce que xam na sa kër sax nga ne déedéet mu ne ah toppkat gestu da caa baax yu was te gis nga politicien sax Mbàkke moom la ñuy topp ne ko lu tax ba ma xewlee ñëwoo waaye sëriñ sëriñ lasta alayhim bi musaytir illa man tawalla wa kafar ñaari yonent Muusaa alayhi salaatu wasalaam Muhammad dañuy jàngale tem boobu soxna assu Muusaa daa romb jenn waay ju bokk ci parti mu xam ne bu ko rombee dem ñàkk camarade de parti mu ne ko loo jotee ak waa ji mu wax ko li mu ko jote musaat di sotle camarade de parti sone waa ji mu far dee waaw alayhi salaam romb lu mat fukki fukki saxaaba ak lu ko ëpp ñu ngi leen tëral ci naaj wi ñee ña ngi leen di duma mu romb leen jëm ca jàkka ja daf leen romb de au lieu mu xeexle leen mooy leen sabran ala yasir fa inna mawidakum al kii du saar maana menn maanaa day amatoo ko yaa ngi am jàmm na def oo góor yonent bi romb leen ñu ngi leen di tëral ak duma moom deful ni Moussa def muy leen sabran lii ngeen nag muñ moo leen ci jële ku ci jóge nag nang ma fekk jàkk ja ku ci jógewut xanaa doxeele aljanna nanga nu fa xaar loolu moo tax ci kóllëre diggante boobu ñaari bokkuñu bu dee sëriñ nii lay def ni yonent bi def bu dee politicien nag ni Moussa def lay def lay ñaareel ji docteur wa awfoo bi ahdillaahi isa ahadtum allahu akbar matale leen kóolu yàlla su ngeen ko siiqeeg moom waaw matale yàlla gi su ngeen ko siiqeeg moom mbàkk yëg na liir bu ñëw àdduna boo boo jooyut doo fi toog suñ borom du ko nangu da ngay signé coloré moo tax liir naan uwee waxaat ko uwee defe naa quatre la koy xaw ma trois ana docteur yi ñu reew li jigéen yi quatre daal wala trois waaye su ko waxul ngoon lay dee te su deexee du donn ci alal li bàyyam ndax waxut uwee allahu akbar waaw waaye su ne uwee bu deexee ci ngoon ci ngoon danañ ko sang danañ ko sang danañ ko jullee dana dooy donn baayam bu fekkee baayam daa faatu avant muy judd lu tax lu wax loolu mooy dafa signé pacte bii tax mu ñëw fii contrat bi mu fii tax a nekke contrat boobu la signé mooy ñetti uwee yooyu moo tax léeg-léeg liir juddu ne cell maire bi ko for ne ko mu xët fuuf ne ko ne ko uwee yow tamit nag bul bul xañ sa bopp sa yi bàyyi waaye xam nga comme bébé lu métti boo ko dóoram xëtin damay faale yàlla nu yàlla yërëm moom kay moom kay naturellement na judd rek ne uwee ñu xam ne judd na léegi nag uwee jooju nag mooy tax nga mën a fetoo mooy lal signé nga benn contrat yaak sa borom uwee bu njëkk bi uwee bu njëkk bi mooy yow rek lay jéggal uwee bu ñaareel bi Muhammad moo may jàngal ni ma lay déggale waaye buñ ne bi ñi ma bokkal pas-pas ñépp maa ngi ñoomay ànd liggéey bi loolooy ñetti uwee yi sunu ba mën ngaa toog lee yow bu bis bi del mu ne yaaye mu ne papaam teralal leen ma ko mooy ngénte ni teralal leen ma ko ne yaayam comme def na contrat man tam dama ko jox avance muy macc soowam yaayam yaayam di ko boor papam di wuti lu ñu lekk parce que dangaa si contrat te suñu borom da ko bëgg a doxal yàlla na nag kóllëre googu na ko sàmm waaye màgg rek bandi ba yàlla jàpp la mbàkke xoolal fi kii jaar ak yàlla rek màgg rek bandi doo sàmm kóllëre gi déedéet mu mu màgg rek bandi allahu di bandi di bandi di bandi ba doola ji jeex takk bandi bu màggat ndeysaan bandi bu màggat <laughs> di koyoŋ koyoŋ waaw bandi bu màggat di koyoŋ koyoŋ yi di ñaan mego bandi mu màggat baaxut bandi bu màggat du am jabar sampul kër soxlawu ko moom na lekk ba suur rek ulil ilbati xayru ulil ilbati na lekk ba suur rek li muy sol sax yoonam bandi bu màggat ba benn bis rek ñu ne bandi ba il est mort danañ jël néew ba barab sàngam ay mbokkam kat nanguwuñ na dafa bandi ne kon ñu bàyyi ko fa waaye ñooy dem jëli ko yàlla ne la man sama kóllëre dama koy sàmm sàngal leen ma ko sàngal leen ma ko wax leen ilimaan mu jëlee ko yët leen ma ko ma wax ak moom say mbokk ne comme bandi la docteur takk leen loxo yi parce que sériwul gis nga loolu moo yóbbee nun sax ñu takk suñuy loxo parce que yàlla wóoluwul ndax bandi yi asaar ku ñuy rob kay wax dëgg yàlla mu dee nga lu ci jar takk ay loxo yow sa loxo dootu jóg mënoo wéq kenn docteur ñu bëgg laa yeew fu ne bandi yi ñoo nu ko yóbbee ya amin <laughs> takk yépp daal di wax mbax mu xóot def ko ci sunu war ne waa sunu mën ngeen dem di bàyyi maag moom mooy tax waa aw awfu bi ahdillahi isa ahadtum su ngeen kóllëranteeg yàlla na ngeen matal kóllëre ga bu bi ci laa yooyu may indi yaa ayyuha llazina amanu awfu bil uqud yaa ayyuha llazina amanu yéen ñi gëm yàlla te am jikko yu rafet dee leen matale uquud uquud xeeti kóllëre la mooy danga ñàkk xaalis dem ci saar maana ne ko lebal ma cent mille saar ne kañ ngay fay nga ne ko début mars ci ban nga ne ko la set mars daan la fay Sarr mën naa dem lebbi xaalisu jàmbur lebal la ndax yaa ne ko la set da nga ko fay ndeke naroo koo fay Sarr dem ba la set soññ la soññaat la nga mere ko dooma ci taxaw ah lu tax du la taxaw arrondissement mu terrasse ko lépp loolu lañu ñu digoon ba démb defu ko waaw mbàkke nit ñi am na ci ñooñ yàlla ñoom lay waxal lu tax ngeen di wax lu ngeen narut waaw ba waajo ne sëñ Cheikh Mbàkke Mbàkke ba lay sa loo wax def ko loolu la ko wax Mbàkke ba lay sa loo wax def ko mu ne ko ah, loo wax def ko de yàlla rekk ko man waaye lu ma nërut du ko wax mu ja lu ma nërut du ko wax ñun bu ñu amee ci loolu bu ñu amee loolu jël di waaye yàlla xam ne ne damaa gis barki démb ku taxaw fi jëppal nga boobu téléphone allo Matar maa ngi nii di bëgg agsi nee na kat gée ngi new la jëm te mi ngi jëppal sunu koñ maa ngi nii di bagage allahu akbar téléphone maa ngi di bagage te nekk jëppal lool ci ñàkk sàmm couleur la bokk gis nga sa làmmiñ lu ci xas génn na na na ko dee yàq comme xas nga ko wax bum dañ mukk ndeysaan dañoo am sunu morom sunu mbokkum séeréer mu ne doom jigéen ji yow kat euh, jigaan daf lay bëgg dégg de mu ne mu mu ne mu ne iyoo kabuga ñu def li ñu def lépp maye ba noppi daa koy muur nag war koo yóbbu mu sëyi tey mu samp xelam ne fes bàyyi na cuub toog fi toog xam nga séeréer lii fu koy waxe ji rakk ju jigéen ji maanaam keñ maye tem daw rakk ju jigéen ji ñëw toog na ko pàpp muur ma ah pàpp muur ma pàpp ji ne ko ah mu ñu muural rek gee gàcce moom bu fekkee mën naa ko faj du la fi dal mukk ñu daal di jël muur muur ga muuraay ga muur ko daal di yóbbu mu sëy jëkk ji doon jëkkër ju jóge ko mbàkki ak si mun ne ko est xam nga man yow laa aimé woon waaw mu jax tag sëy bu commencé neex ren la ci ñaar fukki at ñett kooka ñu muuroon mu daw ba fii nu toog déggugul alxayri moom daal kenn nubu ko ba démb léegi nag comme mu ngi jël si màggat mbàkke kanam gaa nga am ay picc mu naqari deret amul xaalis tànk yay roox bët ya naqari yàlla xam na ko léeg-léeg bët ya bas ma nga toog rek buñ xëyri na ko noo fanaan mu ne mbaa fi kee demoon nag yàlla ubbil ko barke boo xam ne ah tubarkal non mbàkke kóllëre maanaam wax loo nërut wala nar ñu nar la ko yàqal daf daan jaral mag lu lekk wax mu daj ñoom bëgguñu ko woon arabia wallaay ndeysaan <laughs> mu ngoog ma ñëw ci addis yi ci tege ci bunt bi suñ mbàkke mooy abu hurairata moo wax ne yonente ba nee na ayatul munafiqi thalaasa ku bëgg a xam naafiq jàppal ñett koo gis ñett ci moom naafiq la koo gis ci sa bopp yow moomu yaay naafiq léegi nag seytaan da lay wax ne yow moom matal nga diw mi mooy naafiq li tax affaire bi garaaw au lieu nga ne man mii la Omar daf daan xëy naan Usayfa mbaa yonent bi boolu mu ci liste bi Omar lan mooy ñett yooyu issa xaddasa kazaba képp koo xam ne bu waxtaanee fen jàppal un tiers nafiq un tiers bu waxtaanee fen lan mooy bu waxtaanee fen mooy bu waxtaanee day nettali loo xam ne du moom moo ko def ki toog defu ko ka ko def nekku fi mu nekk la ko saf-saf jimbool la ko aromasil la ko te nit ñi nag kooku lañ soxla léegi mu ñammas rek di xëcc di boole foo ko gisee rek jàppal naa féq mooy def buy waxtaan di wax yëf yi jàmbur kat fi ne bi mu wax yooyu saar bi wax loolu nga xam ne siwob mbalit la moom këram camion mbalital fa ki wax sikki jàmbur yi premièrement moom sikk na ndax li muy def nii sikk la allahu akbar waxoon naa leen ci bind yële kera ba alayhi salaam nekkee ci sukuraat te woo Fatima déy ko dara muy jooy ba njërëm ko mu wooxaat ko déy ko dara muy ree bañ jaaxle su ne Aysa dafa jaaxle ñaar yi ñu mu jegante léegi nag problème bi mooy jigéen day dañ kumpa nag loola sa baay wax <laughs> ñii bañ kumpa ñëpp jigéen ci gën a gën bañ kumpa moo tax fi ne <laughs> boo amee ñaari jabar mere kenn ki mere kenn ki boo ayee fee même soo joxewut ay demal sangu ji rek mu xool laaj leen laaj leen moom daal boo sangoo sangu jeeti rek mu nekkoon kii li may bañ kii da koo nangu na jaay ma baxalal la nen bu tax su ay Aysa ne mukk na ko Fatima wax li xew Fatima lan la loolu sa papa wax lu mu la déey Mbàkke moo moom Fatima ne cëll rek ne cëll rek neexal bu ne mu neexal ko mu ne cëll rek bu mu jëkkee ba yonent bi génn àdduna bañ denc ko ba cëllëg sa nag mu ne ko waaw jongama ma loolu sa bàyyi déeyoon mu ne ko léegi de mën naa la ko wax ah lu tax mu nga ko xam démb ak bërki démb mu ne ko su ma ko waxoon di nettalikat te nettalikat mooy fenkat te fenkat mooy naafiq allahu akbar loolu loolu moo tax nu mu koo wax waaye ñun ñii seetet léeg-léeg fi nga toog sax whatsapp ne la benn affaire tar nga jël na ko sa waaye tar ba noppi nag audio ko dégg nga lii ah waaw waaw partage yi kay mu ngi bëgg rek toj tas dëkk bi benn wa isa waada axlafa naa féq su la diggee du ko def naa féq su la diggee du ko def danaa la may cinquante mille naa wax la ko neel unhu rek day bàyyi ba heure ba jot bay heure ba jot nga bëgg caa jot mu lay law lay yoroon naa ko sax mais Mbàkke si la moo fa jaar moom laa ko lebal waxu dëgg de waxu dëgg de dégg xaar bu suba nga ñëw nga suba ñëw mu ne la euh, Cheikh Jëng laa ko lebal euh, Touba Touba Vision moom laa ko abal léegi woo ma woo ma jox ma sa numéro aha keroog nga tàkk boo ko joxee sa numéro da koy enregistré booy sonné du la jël ñaar ñetteel ba wa isatumi na xaana naa fekk foo ko dénki mu war ca ndénkaan ya allahu akbar defe naa xam ngeen dénkaan kuy dénk mooy ku seet nit jàpp ne moom nga gën a wóolu ci sa bopp nga ne ko am dencal ma toog ba mu yàgg nga ne ko la ma la dénkoon jox ma ko boobu nag moo gën a yomb xam nga bu jafe dénkaanee wax rabia dénkaane ay wax moo jafe am lu la métti lu la naqari te bu génnut nga feebar gis nga jigéen ñi <laughs> jamono yi ñuy am ndey dikke jamono yooyu jigéen daawul am bollox lii lii góor ñi am goitre jigéen daaw ñu ko am jigéen daaw ñu am cardiaque ak seen fibrom yi la xamu lu tax da nga daan am koy waxal te du ko wax kenn bu néeg bi jaxee ba jax ba jax ba metti nga soo su daal ñëw toog ak si jooy jooyaat mu may la ndox nga naan door laa laaj lu xew nga ne ko muru xuj ñetti fan yi joxuma dépense ma def ko laaj bu dóor moom pes waaw léegi waaleykum salaam léegi moom bi nga ko waxee loolu réponse yi mu lay jox docteur yu positif la wax ak yow delloo si la wan na la sëy mooy am lii léeg-léeg man bañ ma ko defee ni laa defoon moog yow moog yow ba mu yàgg mu roppi waxandeem comme xaalis nga doon déclaré mu yëkkati ca aleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf jaakumullahu xayran wa ahsana ilaykum mu yëkkati ca non bii penalty la nga def te man du ma Sadio Mané bay raté penalty bu wax ak yow ba sama xel dellu si mu yëkkati waxandeem yëkkati ca xaalis jox la bu dee mbirum yére la mu yëkkati waxandeem jël ca yére jox la nga dellu sa nekk toog waaw ah, penalty ah. am ko baaxee ndeysaan jërëjëf yàlla na yàlla fay la waaye yooyu moo amatul léegi docteur jigéen day jaaxle xaritu intime parce que amoon day dikkee nga ñëw ne ko man de faatu damaa jaaxle lu xew man de ñetti fan yii nii aw ma sama jëkk joxuma dépense mu wax ko ma dima pes mu ne la yaa ko def yaa ko def man de ku ma ko defal dootoo ma ko defati naa danaa la wan la sa maam doon dund ci xiif ba waaleykum am jàmm bu dee jànq bu sëyagut da lay wax ne man de kum bu ma amee jëkkër moo ko defee duutu ko ñaareel waaw <laughs> jërëjëf bu dee ko sëy ba nag moo lay wax lee donc yooyu ñett yii mooy màndargay naafiq su waxtaanee fen su diggee wuute ko soo ko dénkee mu wor aleyhi salaatu daan nag wa in saama wa salla même su fekkoon moo dàq julli ca Dakar dàq fee woor naafiq mbàkk bi ci des jaabir moo ñuy nettali nee na yonent bi lay waxtaan ak moom benn bis jaabir wax ko lenn ci ay difficulté am naa kër gaa mu ne waaw mu ne ko waaye sàkkete gu ko wala tabax naa ba noppi waaye raaxa guma wala raax naa ba noppi waaye aw may bunt yu mel noonu la wax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko am na lu ñuy séentu am na benn som bu mag buy jóge Bahrayn ni am na somb bu mag xaalis bu bari buy bëgg a jóge Bahrayn bu ñëwee danaa la ci jox nga raax ma jox la ci nga seelee bunt ma jox la ci nga karole maanaam def na ko aateetuka haakasa wa haakasa wa haakasa muy ñetti yëf ñu toog di xaar alal jooju mu yéex a ñëw sallallahu alayhi wa sallam far génn àdduna wax jaan fi nag kii xam léppam di Abubakar dégg na ko yonent bi génn àdduna ñu denc ko Abubakar jël xilaafa ga daane ana Jaabir mu ne ko maa ngi nii mu ne ko ñëwal dama déggoon yonent bi mu ne bu alal ji jógee baxaray mi ñëwee dana la ci jox mu ne ko waaw mu ne ko alal ji ñëw na mu ne ko alal ji ñëw na Abubakar daal di tiim tiim xaalis bi sëq jox ko neena bi ma moññee ma am ma am cinq cent mille ne ko ah, lii de sedd na xol mu ne ko nañ la joxaat lu ñu toll ndax xol bi gën a sedd waaw mbokk yi lu tax xis boobu mooy yonent bi moo ko digoon génn àdduna joxu ko ko Abu Bakar bëgg koo mottalil kolëre googu allahu akbar ah waaw ñun ñaata fii diggee ñaata fii diggee euh, dama nekkoon dëkk bu ñu wax njare Touba Njaay génn góor bay ba noppi fayul lempo gendarmerie jël si ko bi ko gendarme ni yéegal ci oto bi mu yéeg ba ñuy bëgg a taal mu wàcc daane bàyyi moor kaay bàyyi moor ñëw gendarme yaa ngi taxaw de tiim waa ñu ngi ñi ngi def nii loxo yi ñu tudde ñu ko tuddati mën kon champion dëgg moo koy moo koy mën déggal suñu borom minal mu'minina rijal allahu akbar minal mu'minina rijal suñu borom ne maa bëri champion am na yëmbar nag am na fi ñoo xam ni ay yëmbar lañu ay yaafus les grands éleveurs oui moo xam nga bu ne minal mu'minina mooy du ñëpp te it dafa jël muslimuna imaam waxul minal muslimina non gaa yi bëri nañ ba génn ci état bu muslim dugg ci état bu iman te du ñu ay champion déggal minal muminina rijaal allahu akbar ndekete champion du lu yomb nekk nañ ci état bu muslim jàmbaare ba jóge ca nekk ci état bu iman ba kenn du leen waxte lam waaye nag nekk rijaal nekk champion nag parce que ñun sénégalais yëpp de demuñu armée ñun ñëpp demuñu école ñun ñëpp demuñu daara loolu rek la minal mu'min rijaal kero ba mus ab faatoo la laay ji wàcc tooy xet benn booy boo xam ne soxna jëmm mi ngi toll ci ñaar fukki at feeñ ca makk ba waa makk yépp xàmmee ko ni booy dakaar yi mel nun la booy bu meloon sañse watu xeeñoo parfum mus aba ko daqoon ku dul moom paay bu ñu masaan toog pour bëgg parfum xeeñ leen dañ koy woo mu ñëw toog booy bu ñëw toog seen biir waaw paay nan ko ba booy fi nga wàcc nooy naa mun naa leen sii sii c'est ma mère <laughs> waaye mbàkke yaay ja mu dugg ci lislaam yaay ja ne ko lislaam maa ngi duñ bokk ci kër gi kër gi maa ko moom Traoré la sant ci biti mu ne ko ñun de ni ñu Muhammad yare mooy du ñàkke teggin sunu yaay waaye yaay diine jii ma dugg nii boo amoon téeméeri bakkan ñuy wadd par benn ba nga dese benn nga may yalwaan du tax mu may ko maa ngi dem nag ndeysaan mu ñëw ci runti bi nekk li ko loolu la xam ne kii mi ngi ak pas-pas xale bi vingt-cinq ans lay am mu ne kaay nga dem Madina li nga jot a xam a kës néew ci bi yar li nga jot a xam a kës néew ci alxuraan demal nga jàngal leen ko xale ba ba muy dem benn jàlla bi dong la am ak i dàllam dem Madina def fa ñaari at soixante-douze personnes nangu ne yàlla moo yónni muhammad mañ gisagut ndax gone bu yaru gii xam nga léeg-léeg jenn waay nga ne ko noo sant mooy lay Sidi Moxtaar nga kontaan lu tax parce que dafa am benn feebum def ci pénc mi boo xam ne ñëpp buñ sañoon lay Sidi Ngoone lay sant oui léeg-léeg nit dara xew ci penc mi boo sañoon récupéré ko boo sañoon yaa koy moom am de waaw ah ne bu ñu nee bu ñu nee euh, émission mbàkk bi nu mu tuddati ba ca rajo ba ca télé ba access média su mbàkki génnee ba def nii bay bëgg tàmbali ngeen baal ma ba génnee ki li muy ŋàbb noonu daan ne mbokk yi di di présenté noonu dama naan sàmm sama néeg di kontaan parce que ni mu koy defee noonu Mbàkke tubarkàlla léeg-léeg mu ne kii ah daal di kooku nuyoo waaw maire géej waaye li ma waayow Mbàkke mi fu ñu ko formé mu ne ko surtout surtout xasas mu ne ma xasas de ko war nañ faa dugg mais c'est-à-dire loolu loolu xam ngeen ni neex na ku dem kat defuma ko waaye dañ naan oustaz a ko def ma ne song gis nga boo amee jabar fi nekk nii fexeel ba mu jubóog càmmiñ ji mbàkke boo amee jabar fexeel ba sa jabar jubóog càmmiñam su ko jënalee consolateur ñu ne mbàkkee mu jënal ko oto ñu ne mbàkkee mu xottil ko ñu ne maanaam moom lu mu ko defal rek loo ci mën dara mus ab am fa diir bu gàtt paa topp ko lu tax dañu ne ko kilo la yar ki la yar koo gis yaru loolu lañ ko wax te loolu maam Sëriñ Tuubaa nee na kenn joxul sëb sëriñ addiya jugal jooju kenn joxul sa sëriñ addiya jugal addiya jooju hmm? waaye moom lañ mënante ne demal jéem caa wax malgré moo tax mus ab mag ña topp ko waaye docteur mu bokk ci ñi gàtt fan xare Uhud ñëw ñu rey ca Musab yonent bi di ko jullee yàlla na Jibril kaay nga dem bokk ca julli ga nga ne leen minal mu'miniina am na ci xale yi rijaalun ay champion waaye yàlla nay xale yi waaye <laughs> minal mu'minina am na ci xale yi rijaalun ay champion sadaqu ma ahadullah luñ wax yàlla daañu ko def fa minhum am na ci xale yooyu nag man qada nahbahu xale bu faatu ko mos am mii wa minhum man yantasir am na ñu fi des waaye wa ma baddaloo tabdila kenn mu leen a jënd yàlla na ñoom sofi ah yàlla na ñoom alaaji ñang yàlla na ñoom yàlla na ñoom yàlla na ñoom yàlla na yéen ñi yàlla na ñun booy yi te paa yi ñaanal ñu seet <laughs> te laay ju am solo la saar maanaa nan la ñuy amee kóllëre yàlla docteur al imaanu bii gëm ko sa kóllëre ak yàlla mooy gëm ko bàyyi ko sa lépp nag tëdd nelaw boo demee ci koy def nii petaaw yàlla na laa ah, yaa ngi bëgg firi kóllëre gi lii bokkut ak lañ séqoon maag yow ak jërëjëf quatrième sé série série du penalty la boo gëmee yàlla doo ko weddi doo ko bokkaale ñaar yu la ci génn lan mooy weddi ko mooy nga def loo xam ne kuy gëm ne yàlla am na du ko def am de nan yow sa kóllëre sa borom kon mooy gëm ko bu ñaaral bi ci kóllëre sa borom mooy jàmm ko jàmm ko ndax jaamu ko moo la fi indi te nangu nga moo indi la fi alastu bi rabbikum luñ ci tego xaalu balaa xanaa duma seen borom ñun ñëpp ne woon axakay ñun ñëpp axakay léegi nag nga bëgg ko fee bàyyi waaw firloon naa ko ñoom sëñ Mbàkke ci alkitaab bi sunu borom ne ndeysaan yaayul insaan insaan ne ko ha mu ne ko maa xarraka bi rabbikal karim lu tax ngay nangu ñu lay nangoo ci man allahu akbar yaa ayyuhal insaan maa xarraka bi rabbikal karim lu tax ngay nangu ñu lay nangoo ci man te waaw te li yàlla wax foofu dafa doy waar waaju jikki-jikki waaju jékki-jékki bi ngay juddu waa ji fekkiwul bi ñuy ngénte fekkiwul bi ngay dal jàng fekkiwul booy nelaw du fekki booy añ nangam nangam nga jékki-jékki fab sa imaan bi bëgg ko yët bàyyi fi yàlla dikkal ko moom mu lay wax nga naan ah c'est vrai ah wala tout à fait yàlla ne lu tax ngay nangu lii maa garrak bi rabbikal karim waaw allazi xalaqak man mi nga xam ne maa la bind ndeysaan fa sawaak ni nga mel nii man am na noo doon mel noo xam ne bu nit ñi toogee doo fi ñëw waaw loolu la loolu la yàlla waxoon Donald Trump ne ko su ma neexoon boo discours du àgg <laughs> inna xalaqnaa al insaana wa saddadnaa ashra wa si naa baddal naa am saala mu ne yàlla ne ko su ma su neexoon boo discours du àgg dëgg la di waaw maa xarraka bi rabbikal karim allasi xalaqak di kër-këri ci lu yaateel diineem ji aljihaadu fi sabilihi kër-këri ci lu yaatal diineem ji gis nga lii nu toog nii fi nekk nii ci loolu lay dugg ñiy filmer nii ñoom Cheikh Dieng ci lu lay dugg ñuy taxawal selil ci lu lay dugg ñuy cotiser ci lu lay dugg ilimaan yi ci lu lay dugg ak makk yëg lépp al jihaadu fi sabili bëgg rek li fi yonent ñu yokkal ko ca dara allahu akbar li bi bàyyi woon ñu yokkal ko ca dara loolu mooy jihaad loolu mooy jihaad ñun ñëpp ko amee sunu borom waaw mu nga maa ngi wax sànq darsi ba ma doon jàngale ca jumaa ja mooy kër ba limee parcelle maag yow ca école Modou Gueye ba ma ne leen ñun léeg-léeg ci jihaad jihaad dafa aajoo baat bu ñu tuddee al infaqu fi sabilillah waaye ñun Mbàkke dañoo nay ci ñett dañoo nay ci suñu am-am nay ci suñu force nay ci suñu temps moo tax bu ñuy firi man ra amin ko mun karan saar maanaa bu mu dégg mooy leen kon tey duma ko firi dama koy ta'wil may leen xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man raa ku gis minkum ci yéen mun karan daara ju àggul fal yu xayri bi yadihi na ko àggaleeg loxoom ah? dama ko tawil man raa ku gis minkum ci yéen mun karan daara ju àggul fal yu xayri bi yadihi na ko na ko àggaleeg loxoom fa in lam yastati bu ko munta àggale loo xam ndax amul xaalis fa bi lisaani yi na ko wax docteur Gajag mu àggale ko ma ngay nodd de teg leen seen baaram foofu yàlla nañ ko jox joxante bu déwénee jërëjëf yàgg nga ñu ko jox amin amin amin amin jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf amin macha allah ab jaar bu rafet la am. waaw beneen bi soxna Safiatou nee na. macha allah teral. defaral ko micro bi mu ni beneen bi. defal ci teral Oustaz Mbacké Sylla ñu ni docteur Abdourahmane Thiaw dañu bëgg mu ñëw jox Mbacké cadeau bi. alaaji docteur Thiaw waaw beneen bi eh, Serigne Mamadou lañ dafa am ngan eh, comme Serigne Malick a ngi fi. ñu jël adjoint maire Baye mu jox kàddoom yi. kadoo sëñ Maodo mu joxoon ñu ko sëñ Maodo ah eh, Mbacke sa bos njëkk na rafet na macha allah ah moom. léegi nag soxna yaa ngi fi mag yaa ngi fi rakk yaa ngi waaye sama turandoo yaay laa bëgg yaa jaay ñu jox bu ko saa mu ko jox jox leen ko lu mu muuroo bu ñëw. mooy ñetteel moom ngay ñetteel wala. koy sikaral tey mu neex de wala ko de waaw euh, comme euh, début bi maa defoon introduction bi. la nee na ñu jox ko bu continuer buñ paree bu ñu demee ci question yi incha allah sëñ Mbacke jël ko saas yàlla na yàlla mottali soxna Sophie sunu sunu kàddu yi rafet na lool te li ci biir am na solo lool ay jaaro xaqiqa yu rafet waaw kon mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot yàlla na nu yàlla nangul sunu julli yàlla nañ ñu yeex a jullee maa ngi tolloon ci kóllëre ñaata xeeti kóllëre ñoo am ma limoon ci kóllëre diggante nit ki ak boroomam waxoon naa ñett ya muy gëm yàlla jaamu ko ak kër-këri lu yaatal diini ji beneen bi ci kóllëre mooy kóllëre sa diggante yonent Yàlla Muhammad ndax bi nga ne laa ilaaha illallaa da nga cee teg Muhammad rasulullah kóllëre ga tàmbali kóllëre kon moom yaag sa diggante moom mooy danga koy bëgg da koy topp da nga koy ormaal boo deful ñett yi benn rek yaa ngi firi sa kóllëre sa diggante moom bi ko ñetteel mooy kóllëre sa diggante sa bopp nit ki daa am kóllëre digganteem ak boppam en tant que moom mooy sa yaram bi de ko defar sa cër yi de leen toppatoo del fexe di lekk lu neex di sol lu set boo dee góor nga takk ci jongama yi ñeent boo ko mënee nga am oto bu rafet yooyu mooy sa kóllëre sa diggante ak sa bopp lu ko mooy mën nga fee sàggan teg fi sa bopp loolu yàlla tegut ba xëy ak benn jaaykatu ndox dafa faatu ca Mbàkke ñu yóbbu ko hôpital pour ñu defal ko autopsie pour xam lu ko rey ñu gis ne ab xiifa ko rey ñu làmb poos ci tuba ji fekk ci fukki junne ak benn ak ñeenti téeméer mu dee xiif kooku xam nga ne sàmmul ko la digganteem ak yaramam sa kóllëre diggante yow nag ak nit ñi looy wax na nga yëg ne engagement la ci yow looy jëf na nga ko xam loolu mooy li jiitu ci sa kóllëre diggante yow ak nit ñi na la say wax di engagé bul jàppe say wax mbubb bu la neexee sumi bu la neexee sol gor ca wax ja la wolof daan wax bu ñaareel ba ci sa kóllëre diggante ak nit ñi bul di giñ lii def lee signalé gauche jàdd droite loolu ab jullit du ko def bu am kóllëre bu ñetteel bi ci kóllëre sa diggante ak nit ñi mooy yar gi ngay yar sa sa doom ndax doom ndénkaan la ju yàlla dénk bu faatoo lañ la koy laaj moo tax buñ koy rob laaya mooy ñëw ne la fitratullahi lati fatara nasa alayha laa tabdila li xalqillah mel ni ku lay laaj ndax ki la yàlla joxoon moom nga koy delloo ni loolu ci sàmm ko lër la bokk ndax yow yaa ñaanoon yàlla doom dugg ci néegu sëy mu may la doom doom jooju fexeel ba buñ koy delloo yàlla ni mel ni bi la koy jox ndax kullu mawludin yulad al fitra fitra boobu nag bu mu fi yàqu ba muy sàngoo suuf fitrat lay la ci daal del siwaat lu jar bàyyi xel la bu ñeenteel ba ci sa àq diggante nit ñi mooy àq yi nga xam ne moom la nit ñi am ci yow nañ ciy jot alxuquuq yu jiwaar àq yi nit ñi am ci yow nañ ciy jot waaye àqi safaan yi buñ ko gis neexal a dëkkal del joxe teraanga del ormal nit dee ko jox respect loolu yaa ko amel sa dëkkandoo yépp tàmbal nag ku la nuyu na ko fay ko romb na nga ko nuyu ku feebar seeti ko ku faatu te nga mën koo gunge gunge ko ilaa yi loolu da koy sàmm sa diggante nit ñi ndax daa am ñu la koy lebal bu ëllëgee saa boo ànd ci rob yëgal ne bés nga ñëw ñu ànd ci sa rob yàlla na yéex bokk na sàmm kóllëre sëñ Mbàkke nga sàmm kóllëre sa digganteeg sa jabar walla say jabar euh, boo demee ci xutba yi Seydina Limaamu yooyu Cheikh Gay bindoo daf caa wax ne inna arna al amaanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna nee na bu ñu ko tëwilee mooy bu yàllay dénkaane jigéen ku ko dénk da ne merci góor ne jox leen ma góor ki nga naan jox leen ma nag xamu xamu jikkoom gaaw naa mer dëgër noo fit mën naa tooñ te day xeeb seede yàlla jigéen ñépp nag ndax jigéen ñee maase ak ganaar ya gone yi dëkk boo dem jigéen ñaag jigéen ñépp a maase gone yépp a maase ganaar yépp a maase bàyyi mbay daana moo xam ne nga defee ne sa soxna sii ak sa yaay ku ci mag ma ne ko xanaa sama yaay mu ne ma ne ma doo fekk mukk man mii muy xuloog sa soxna ndax maa ko mag mu ne ko waaw mu ne ma boo yàggee dem dikk léegi te nga fekk sa yaay sa soxna ñu taxaw kenn ku naan sa morom yaa ma gën a ñaaw mu ne ma suñ magante woon bu ko sa yaay magoon moo koy muñal mais comme ñoom maase léegi nag bu la yàlla may ci jigéen ñi kenn may la ci ñaar may la ci ñett ba may la ci ñeenteel ku ci na daa am àq yum am Dakar nag àq yëpp la fàtte ba mu des àq aye Dakar a gën a fonk ak ay ci Sénégal Dakar gii cët të oustaz sama borom kër bii minuit la tër si est-ce que dese lu ma vingt et une heure ba minuit loolu lañ ma lijjanti loo yàlla xam na ko loolu nees koy lijjantee sa jëkkër dafa demoon ci jàng yi guddee minuit la tër si nga bëgg na léegi deseel na ma vingt et une heure ba minuit ak ñoo fangoog ay góor ñiit kenn lu ñoom boo amee ñaari soxna dangay tëral programme ñaari fan fi nga ayee añ ngay def si dangay añ reer ndékki añaat reer ndékki jël say bagaas dem boo demee fee boo fi defee noonu ñibbisi fii comme ñaari fan la Adja Binta ah. léegi lañ ko téléphoné dañ ciy ñëw mu bàyyi daw lépp moo la décoré ut bi rafet na de moom amake ah, barka <laughs> dégg ak ay mi ngi jeexa ci ndékki mi ngi tàmbalee ci añ ci góor gu am ñaari jabar walla ñett boo defee ñaari fan ñaari fan nag léeg-léeg dimanche fekk la fee lu fekk la fee mais am na jigéen ñi ñoo xam ne naan la samedi ak dimanche doy na ma kon kee du ay mukk samedi ak dimanche léeg-léeg takkoo yaa koy def léeg suuf yi xam nga dakaar góor ñu bari dañu ragal seen jabar yi moo tax ñu takk takki suuf waaw waaw dem ba yëmbal rek takk fa ñaareel doo fanaan mukk ayub bëccëg rek lay doon ndeysaan yal na yàlla yërëm góor yi Dakar waaye àq yi na mat àq yi na mat dee ko jox ak ay dee ko jox dépense dee ko wutal yére wutal ko dëkkuwaay can gi bu fekkee dangaa waxoon deux cent mille laa lay jox xamal fi yam yem di ci dugal baa muy mat bokk na ci sàmm kóllëre nga sàmm àq yi jullit di am ci yow al muslimun nga sàmm àq yi am ci yow ndax ci mi jullit dañ ci ami àq àq yi da nga cee bokk gis nga boo demee Chine tey xam nañ ni yàlla rekk ay dëgg chinois yi yaa maalikal mulki yaa man jàll al xawaadir irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jàll al xawaadir irham jamii al waraa